soxal wàllum yoon ak ñàkk yemale gi ñu nemmeeku ne kumba am ndey ak kumba amu ndey dafa am ci doxalinu yenn ci Sénégal wante tamit ci wàllum tasum xibaar dafa mel ni waa bitim réew daal moom la Macky Sall gën a jox euh, làmmiñ ñi nga xam te ne ñooy waa Sénégal ndax saa suy wax euh, tubaab yi lay waxal wala bokk sax ñu nekk ci internet bi la ci mujj di Kaliphone doon saaga Macky Sall ci bi mu dem wax moom defal mooy interview alhamdulilah lool moo waral ba Macky Sall fàllewul taskatu xibaaru Sénégal yi xamal ni Macky Sall respecté wu la njiitu réew mi li ko gënal mooy Samba Alar dem ci journaliste yi nga xam ne ñoo ne bitim réew ngir waxtaan ak ñoom xoolal sax àjjuma ci ngoon moo nàmm tànkam sol dàllam dem ca BFM TV ca France ca seeni biir studio ba mu faloo ba léegi toll na ci fukki at musta sol dàllam dugg ci benn télé mbaa rajo fii ci réew mi moom Macky Sall. am na ñuy laaj nag ba xam journaliste sénégalais yi dinañ bind bataaxal ngir sàkkoo waxtaan ak njiitu réew mi dem leen palais présidentiel di ngeen fa fekk ay dul jeex bu leen wan ni jot nañ seen kayit kenn du leen tontu. ana ndaje bi nga xam ni 31 décembre la ñu waxoon ni Macky Sall da koy seq ak journalistes yi waxtaan bi weesu amaluñ ko ñu ne dañuy bàyyi ba élection locale yi weesu élection ya jeex na ñu ngi sóobu ci yeneen élection te defuñu ko ndaje amul kenn waxatu ci lu ci jëm. Macky Sall ak ñi mu àndal respecté wuñ ñu respecté wuñ journalistes yi président Sénégal kay fa ngay xamee ne ñàkkal na fayda journaliste Sénégal ba noppi du wax ñoom tubaab yi lay waxal. li ci gën a garaaw nag mooy mu jox interview benn waay joo xam ne moom la ñuy wax influenceur tudd Kalifa nekk ci internet bi saagakat bu mag boo xam ni moom mii Macky Sall amul xeetu saaga bu mu ko saagawul foo saaga gën a ñaaw saaga na ko Macky Sall mu dem France ànd ak waa ji di longook moom di waxtaan ak moom ba koy defal interview te moo ne Macky Sall mii bu ngeen seetloo saa yi wax ci réseaux sociaux yi ne li ci am jaaduwul saaga yeeg xaste yi jaaduwul muy lëngoog saagakat boobu moo tax lii yoon fi ñu toll nii mooy ginnaaw moom ki ko doon saaga mi ngi lëngoog moom député Abdou Bara Dolly Mbacké dañ ko war a génne ci koso bi looloo jaadu ca loolo ba tey gis ngeen communiqué bi ministre de la justice génne keroog ne wéy moom moo wax procureur mu jàppalu kii di Bara Dolly jëlee fii nag def ko coupe di ko yëkkati ca kaw est-ce que ministre de la justice soxla woon na génnee dënnam ngir def loola. léegi moom ministre de la justice lu muy xaar pour wax procureur mu topp Ahmed Suzanne Camara mi nga xam ni daa jël vidéo dugg ci internet bi ne dañoo war a rey Ousmane Sonko loolu la ñuy wax appel à assassinat wala apologie de l' assassinat waa jaa nga toog fa mu toog kenn xoqatalu ko kenn seetu ko ndax rek APR la boo ko Macky Sall la faral. tribunal Sénégal de justice Sénégal lu muy xaar ci enquête xaalis bu bëri bi nga xam ne daanaka toll na ci benn milliard ci xaalis CFA bi ñu sàccee kër Farba Ngom di député boo xam ne ku ne xam na ni ci ñi gën a jege Macky Sall ci la bokk lu tax loolu duñ ko seet je m'en gi Macky Sall ki gaay yi nekkee jamono jii war nañ cee wax.